mu ne ma déedéet ma ne ko ah lu ma ci xam mu ne ma diine dafa bare ay façon boo jàngee nuunu yi am na fukk diine ak juróom si laaj ma tegale. Mhm. yoo xam ne benn bokk teg sa morom lu muy firi. nit ku ne la nga gëm sa diine la. waaw kay. waaw même bu dee ay caaxaan. dana doon aada diinu dina firi aada. Mhm. diinu dina firi al milla bii nga xam ne moom la eh, alxuraan doon wax. te te Ibrahim. waaw mhm. milla Ibrahima. xam nga yàlla bu ne diine du ñaar. boo jàngee ci alxuraan yépp an aqimu addiina inna diina uh-huh. inda al islaam uh-huh. inda allahi al islaam uh-huh. loolu diine benn loola benn la uh, wama li wama umiru illa li an yabudu llaha muxlisina lahu neewul al addiyaana addiina addiinu lii neewul al addiyaanu lii wax di ca hadiisu qudsi ba dañu addiinu lii wax di diine man donga ko moom. néew na lu mu lekk jàmbo de. di al ah, adiyaan amul. amul ci alxuraan. xanaa ci ci des na suuf yi. waaye man de gisuma ay biir alxuraan Maodo. yow tabaarakallaahu mm-hmm. xam nga ne diine moom benn la. Mm-hmm. lakum diinukum seen aada seen habitude wala yéen yal na ma diine sama diine muy millatu Ibrahima xanifan wa ma kana min mushrikina mm-hmm. mu ne mu ne mu ne bu neexul yaayal kaafiruuna diinu ah, tawxiidu jëf la. bu dee xul wallahu ahad tawxiidu wax la moo tax boo koy julli nga jàng faa bu eh, ràkk bu njëkk bi xul yaa ayyuhal teg ci ñaareel bi boo defee say tasbihaat ba noppi juróom eh, ñaar fukk ak juróom nga jàng eh, fatiha xul yaa ayyuhal am nga am nga 15 déjà nga jàpp ci say wóom allahu akbar jàpp ci say oom def 10 am nga 25 nga siggiwaat def 10 am nga lan. 35 mhm. nga teg sa ji suuf. Mhm. am nga lan 45. Mhm. jógaat toog. am nga 55. nga sujuutaat. am nga. 65 65. nga jóg taxaw wax ko fukk. muy 75 muy 75. rakka ba jeex. rakka ba jeex. nga daal di jàng nag Fatiha jàngaat xul yaa kaafiruuna ji ay xul wallaahu ahad daal di indi quinze cinq euh, dix ba mu na nga fexe rakk bi daal bu mu ëpp. soixante quinze yi daal na waaw. Mm-hmm. bu ko defee nga daal di taaya. Euh, bu euh, salatu layli mas naa mas naa. Mm-hmm. salatu nahaar nag salatu nahaar mën nga ko def. nga boole leen mën nga leen a boole waaw. Mm-hmm. waaye de su sëlmal ci diggante bu dee bëccëg waaye yéen si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu guddi gooy def naafila yooyu def bëccëg na nga koy def par deux deux. day kii nag. waaw ah, bu dee ci guddi gi. waaw bu dee guddi. Ah, bu dee ci bëccëg gi nga def ko fa ñeenti rakka rek mu nekk misala comme ni nga jullee tisbaar. tisbaar waaw tabaarakallaa. waaw Alaaji Ibrahima Sakho moom la dañ gis ne. Eh, xilaasu hab yaa ko tudd léegi. te muy téere bi nga xam ne sama turandoo moo ko bind. Seydi Hajji Maalik Si radiyallaahu taala mhm. wax ci lépp yonent bi. wa sallam man de gisuma lu mu ci waxul. wala waa wala boog néew na. Mhm. waaw léegi ci loolu eh, ni mu dégg woon xilaas xam-xam bi ko fattu bi ko ci yàlla defaloon ban jàngat nga ci am. waaw xam nga nag euh, Maodo. am na loolu moo xam ne mbirum baatin la wala affaire sirru la. Uh-huh. waaye zaahir nag la nit xam. Uh-huh. waaye yàlla dafa ne wa man uutiya al-hikmata faqad uutiya xayran kasiiran. Uh-huh. wa ak euh, ñawte. yàlla daf ko defoon El Hadj Ibrahima te jógul rek dal ci dafa am xam-xam yoo xam ni. Uh-huh. wax am na ci yu bare. Uh-huh. waaye kas bi moo ci ëpp solo. Uh-huh. ndax Cheikh Seydou Mouhamadou soo day wax ne xam-xam. barke kenn du ko doon. man ngaa doonu siiw nag jóge ci ax bu rëy. Ah, doonu waaye xam-xam dañ koy jàng surtout lii alquran li nga xam mooy mooy grammaire wala sax dana dana bare xam-xam am ilmu laduni dafay am. mais ilm bi nga xam ne bii mooy ilmu sharia ak wàllu naxwu mhm. yooyu dañ koy jàng ak luxa waaw ci xel lay ne de dañ koy jàng mhm. mu def kas bu nag ci loolu mu jàng ba alquran daf ko teel a mokkal man togg yàlla dogal na ànd na ma moom lu yàgg mhm. li ma diiru li ma àndeek moom 83 ba 90 amul benn guddi goo xam ne gii du day fay fanaan ci gàmmu man mii ak Alaaji Gay ak ñu ñu ko daan woyal ci mel ndóoy ak ñoom Baye Biram ñoom Baye Docce rahmatullahi alayhi ñoom Ibrahima Samb ñoo daan nekk di ko dar di ko tagal yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag ñu gis ci mu muus te mu am ci muus xam nga Maodo du du képp ko xam mën a nettali xam-xam ba mhm. di nga gis ko mën a wax lool waaye amul xam-xam di nga gis nag koo xam ne kii bari na xam-xam lool mais mënula wax mhm. waaye yàlla dogal na ci alaaji bi sam lu mu xam mën na ko décrire mën na ko nettali mu moo teel a mokkal alxuraan jàngi itam wàllu fiqu daana wax ni man dama siiw ci sari eh, ci ci siira rek waaye man fiqu laa gën a man hmm. entre parenthèse ci fiqu dana wax na xam nga boo dee jàng boo dee jàpp hmm. mën na waxaan est-ce que xam nga lu tax ñuy njëkkee ndeyjoor raxas ko eh, raxas ay loxo door a galaxndiku door a saraxndiku ma ne ko déedéet mu ne dañu wax ne man maa ul mutlaq laa yaru Mm-hmm. ahadu as awsaafihi thalaasa mm-hmm. dara waru cee changé ci ñetti melo yi mm-hmm. lawnuhu aw uh, taamuhu aw raayixatuhu melow yi ak cafka gi ak xet gi mu ni boo dee jàpp comme uh, li tax mu ni uh, farata bi commencé ci ci kanam gi dangay raxas xool daal ni ah nii la meloon de ñam daal ni ah lii la safoon de fóon daal ne lii la xeeñoon de kon mën na maa jàpp daal ne bismillah commencé ci kanam. waaw boo ci muccee door a tàmbali. waaw da ngay mucc que faratay njàpp foofu la tàmbalee. foofu la euh, ba effectivement. commencé. bu ko fala yudul wu doy. sa alxuraan ma dafa ne bu ngeen jógee di jur rek. wax <laughs> ko waaye di ko ilal marafiq. marafiq euh, <laughs> wa arjulikum ilal kaaba. waaw yéen a ngi jàng arjulakum. waaw arjul am nañu arjulakum am nañu arjulikum. arjulikum nag ko léegi nag gars yi nag daal léegi nag la ci gars yi dugal sarax ndi koy yooyu nag. waaw kay <laughs> moo tax sunna euh, euh, xam nga doo jàngee alxuraan. Eh. huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum mm-hmm. yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim mm-hmm. wa yuallimuhum alkitaaba mooy alquran wal xikma mooy sunna mm-hmm. il faut nga boole ci sunna sunna it du du jot jot dal Cheikh Seydi Aboubacar daana wax naa mooy yéen ko xam ko mënul dara ci bi ku mënul dara ci suux luy sa yoon ci bi yax yor xattu xuraan di tararari xalifa bi toujours da koy wax jël xattu di jàng alquran di fiiri yow gisuloo te xalifa bi bu daan fiiri dafa daan wax naan sëñ Babacar Si daan na wax ne si Seydi Xaaj Maalik nee na alquran lëf ci naxwu lëf ci luga lëf ci bayaan lëf ci mantiq lëf ci usul mhm. jàng luga piir te fa seen waram yem nga yem Mm-hmm. waaye looloo tax yu eh, al kitaaba wal xikma xikma il faut nga boole ko ci muy xadis. Mm-hmm. waaw xadis boobu nag. mooy complété yi fi. mooy complété yi fi mm-hmm. bu fekkoon ni njàpp ci li alxuraan tudd lay wax lim nga ko fi léegi ci aaya ba. dafa wax ni raxas leen. Eh, waaw kay bu ngeen jógee isa xumtum ila salaat. fax eh, isa xumtum ila salaat. <laughs> yow dama ko wan a ko di. nga dëgg de. defoo taaratul xadas. xabas la door a def taxaalatul xadas ak taxalli door a def taxalli ngay lapp ca wan a koo pare door a ñëw bu ko defee euh, mu jàng mu jàng lool nag lii alquran jàng itam sunna jàng siira itam daanaa gisa ci doxalinam ku bëggoon téere la moom alaaj ibrahima sax fawzu wa najaa bi bare na téere yoo xam ne am naa ko moom laa gis mu daan ko yor ma sopp ko loolu xam ne du yor téere bu ñàkk njëriñ ma jënd ko d'ailleurs sax gént naa bis mu yor fawzu wa najaa boobu maag moom ñu toog ci aljanna wallahi wal quraan azim mu duñu wayloo eh, wa ahlu makkata lawla al jinnu ma alimu ayna ntaha daafiu l awzaari wa saqami ca si ba léegi yaa ngi ci si raaj mal ca ba yonent biy dem waaw kay ca madinatu mun a wax te jinne joxe information bu du woon makka bu du woon jinne yi uh-huh. ñu doon wax naa jazallahu xayra naasi xayra jazai rafiqayni xallaaxin xaymatay umma maabadi mhm. bu du woon loolu màkka duñu xam yonte yàlla muhammad fu mu jublu